du Cissé Kounda bi nga xamni euh, Cheikh Ibrahima Cissé di Pa Cissé moko samp and ak ay dëkkandoom ak xaritam ak mbokam ak mi ngir dundal li nga moy sunna ren ñuy santat suñu borom subhanahu wa taala bu baax ndax ju Cissé Kounda yalla may nako ren encore mu xarafalaat deux cent njulli yoo xam da ko def fi sabilillah dimbali si doomu adamay waye saxal ada waye jëmmal euh, humanité humaine bi nga xamne mo euh, jara jara rayante ngir aduna bi mëna jakk si loolu nag di sant suñu borom bu baax ndax yàlla def na ni ren ah, li si liñ si séntu lu bëri si wàllu organisation bi motale na si wàllu si wàllu salbe yi si wàllu taalibe yi si wàllu xarit yi si wàllu mbokk yi ba yàlla ma ñu tal ak fekkee ba ñu mën a def eh, eh, événement bi si jàmm. xarafal 200 julli si jàmm teg sécurité bu mot sëkk ngir seen aarwaay waaye teg organisation bu mot sëkk ngir mbir yi mën a jëm kanam ndaxte mbirum Kankourang si Juuju si Seekunda lu am solo la si doxal aada bi lu am solo la si defar diggante yi lu am solo la si saxal sunna bi waaye lu am solo la ngir yëkkati mbuur ca kaw ca kanam pour le développement de Mbour dans la paix et, et dans la sérénité de la population bourgeoise. Djou Sissé Kounda, Elas Kao Sissé du coordinateur Djiu Sissé Kounda, de lancer un appel solennel à tous les citoyens sénégalais. Ne nit ku nekk na nga góorgóorlu na nga góorgóorlu saxal jàmm nit ku nekk na nga góorgóorlu ba sa morom gënal la sa bop ndax bu la sa morom gënalé sa bop da ngay ni am jàmm bo jëlé sa morom def ni mom mo la gën sa morom def ni yow ya ko gën kon da ngay ni and ci jàmm ak salam ku nekk moytandiku ne mana mana mana waaye ku nekk di fexe ba di jiital ñun ñun ñun ndax ñun ñun ñun mooy boole doomu aadama yi mooy tax nit ku nekk mën a gis boppam si li nga xam ne ñu koy def donc ñuy lancer un appel solennel à tous les citoyens sénégalais à tous les citoyens mbourois ñu xam ni Sénégal mu ngi si loxo citoyen bu nekk képp koo xam ne sénégalais nga na nga xam ni jàmm Sénégal ci sa loxo la nekk na nga xam ni jàmm Sénégal ci sa tànk la nekk waaye na nga xam ni jàmm Sénégal ci sa làmmiñ la nekk kon ku nekk ci ñun na yokk góor góorlu xam ni jàmm Sénégal mooy jàmm eh, doomu aadama sénégalais mooy jàmm Afrique mooy jàmm àdduna bi kon ku nekk ci ñun na góor góorlu jàmm gën a sax ñu jéggale tey jëlale tey bëggante kay soppante waa xiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf